sàkku njéggal ki jiite réew mi faw mu jéggal ñi mu jiite nde moom xajul ci ñun ñi mu jiite waaye ñun xaj nañu ci moom mën nañoo dal ci kawam waaye moom ku mu dal ci sa kaw nga gaañu parce que yàlla moo def loolu ci moom ma ne ñag nga lem Cheikhul Khadim te sëriñ Bass fàttali ko léegi mooy ne sëriñ bi da doon jekku te du jekkali jekku te jéggale kon ñu ngi sàkku ci ki jiite réew mi bu jekkoo nay jéggale nee naa leen góor yàlla dëgg mooy ki nga xam ne nit tooñ na ko mu xam ne mën na koo fajal boppam waaye mu dellu ginnaaw def ko ngir yàlla rek te mu mënoon koo faj